إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بي بالمجد bi wa xaala bi bil madil عجبني خير باخ في خطابا كل ورقع بما لغدا اختابا عجبني خير باخ في خطابا كل ورقع بما لغدا اختابا لواجب ما خصد المبي لنا فارغت وولد والأمن ما خاب بيوت الذي ليس عني ولي بدني ولي يخلده من كبس خابا إلى سوى يريدا تنو بما معهم وبيصفي إلى عدر الباب قلوب من لم يحب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 bokki julli di bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare mu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ndokkeel di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi fi nekkal sëñ Touba sunu borom yàggal ko fi lool te ko ba yéene yi mu am ci liggéeyal sëriñ Touba yàlla na ko defee ni mu ko bëggee te yàlla nañ ko ànd ak moom. noo ngi am cant bu baax ci jataay bi nu toogee ci ndigal li nga xam ni moom la sëriñ bi joxe. ci waajtaayu bisu xaside bii nga xam ne moom lañ jublu euh, ñu bokk fii ci daara ji toog ci kon kanamu sunu jëwriñ sëriñ Youssou Diop ngir waajal bis boobu ñuy woote nag ci turu jànkati xaside yëpp yi nga xam ni euh, ñoo aju ci daayira Mawaahibu Naafi ci turu sëñ Fallou Ndiaye ak mboolem jàngkat yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi yëpp mboolem région yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii Touba itam ci taxsimu Seexul Xadim ak mboolem daayiru Ahlu Xasida ak Touba Xasida social ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci jataay bi jataay bi itam ñu ngi koy amale ci jullikaayu it bi fii ci kanamu jumaa yi muy fi jullee it foofu la ñuy xëy bu sept wala huit heures gën gaa naaj ñu bokk fa daje dundal bis bi ni ko sëriñ bi diglee ba takkusaan noo toog nag ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañu ñu di ci woote ci seen tur ñoom ñëpp di sàkku itam ñëpp maase teewandoo fa te kuy ñëw ngi indaale pas-pas bu dër ak yitte ju mat sëkk ngir sëriñ bi lim nu sàkkul ci boroomam nu mën cee jot wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yallaahu yaa alimu anta allaahu wa yaa xabiiru maa lahu asbaahu هب لي من لدنك ما نحب يا من له الأمور أنت الرب وعافنا والتف بنا ونجنا والتكفنا وكن لنا يا ربنا بحرمة الهادي عليه سليا وسلما في سعبي وكن ليا سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin addiye borom Tuubaa